إسرتي ربي يا باب الغير يا ربي لم يفيد ربي لا إله إلا لذا تصرفنا نحو بابك وجهتي ربي لا إله فالكريم من التجا بلا إله إلا إلى بابه يأمن على كل نقمتي بلا إله إلا فأنت حليم يا سبل لمن جفاي بلا إله Bye.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 نحييكم ونشكركم في هذه سحر المبارك وهي سحر مولد النبي صلى الله عليه وسلم آه، كأننا الآن لا نستطيع كما نريده لموجز الأوقات إذن فنحييكم ونشكركم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Euh, mbokki jullit yi dañuy sant yàlla jullit ci yonent bi sallallahu alayhi bi nga xamee ne yàlla may nañu ñu fekkee burda te mooy weer wi nga xam ne ci la sayyidil wujudi wa alami suudi juddu moom mi nga xam ne ci leeram ci la lépp lu am amee mu mel ni ki feete juddu yonent bi alayhi moo waral jotaay bi ndax préparation bi am na ñu ci am wuute nag ñu ne ndax dafa war walla warul waaye daal li gën a gàtt moo di ne kenn ci ñun ku mën a doon bu dee bëgg la am walla naqar dina fàttaliku bés bi nga xamee ne moom la ko amoon kon nag dafay jaadu ñu fàttaliku juddu yunt bi alayhi moom mi nga xam ne lépp lu am lu ne mu ngi amee ci amuk sallallahu alayhi wa te yàlla dafa wax ci alquran ne wa amma bi nihmati rabbika fa hadis say xéwali boroom nanga ko sant yunt bi alayhi salaatu wasalaam wax ne atahaddusu bi nihmatillahi sukrun wa tarkuhu kufru waxtaanee xéewal yi nga xam ne moom la la yàlla defal kooku sant yàlla la boo ko bàyyee day mujj jur weddi ba tey yàlla wax ci alquran ne wa in tawdu nihmatallahi laa tuxsuha kon nag feete ci benn weer wala benn bés di ci fàttaliku dara dafay jaadu donte le mënuñu tudd lépp yàlla waxaat ci alquran ne la in shakartum la asidanakum wala in kafartum ila axiril aaya bu ngeen ma santee ma dolli leen waaye bu ngeen weddee tamit amul lenn loo xam ne mën na ko wàññi ci sama nguuru mu mel ni cant googu nag moo waral tey ñu daje woon ne nañ def burdu dontle mënuñ koo def ci weer wi yëpp wala ci bés yi ba fukki fan yi ak benn ñu tënk ci benn bés boo xam ne dinañ ci jàlle benn message benn préparation ci feetu juddu yunt bi alayhi wasalaam xam naa nag bu ñu delloo ci bindi mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo ñuy jàngal teete ñu ba ñu mën a xam ka nga xam ne mooy seydil yi mi nga xam ne lawlaahu lam taxruji dunia min alhadami bu nekk loon moom adduna du am ndax dafa mel ni balaa moo ñëw moom salaa salaam ñuul rek moo amoon ci adduna bi bi nga xamee ne yàlla namu naa feeñal nag ñuul googu ndax ñuul kese bu fi nekkee kenn du ko xam balaa ñuy xam couleur rek ñaar moo am ñu xàmme bii ak bii waaye bu dee benn rek moo fi nekk ñuy gis benn rek duñ am turam yàlla nag ci la wax ne kuntu kanzan lam oraf فأردت أن تعرفوني فقلقت قلقا فبيا تعرفوني دابا نيكون بن بوات ني تيجما كين موسما خم ما بغ نين خم غيناو بوما بغي نين خم نك سي لا بند سيد الوجود وعالم السودي نك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سي لا ام خم خم ني مانا خم لو مانا دون خم غوغو نك jamono dafa toll foo xam ne dafa jafe lool lool lool lool ndax bindkat bi def ne salaa salaam waxoon na ne jamono dina ñëw joo xam ne nit ñi duñ xàmme borom xam-xam yi lu mooy ay borom yëre yu rafet kuñ gis yëreem rafet rek bu waxee qaala allahu qaala rasul donte le sax la may wax mën na wuuteeg ni ko yàlla waxee wala ni ko yonent bi waxee dañ naan kooku mooy borom xam-xam. mu waxaat leen sallallahu ne dinañ toll ci jamono joo xam ne nit ñi duñu jaamu yàlla lu mooy weeru ko te yaakaar naa ci lañ nekk danaka maa ngi xaw a def li ñuy wax xaarijul mawdu waaye lépp ci guddi gi la ñuy fàttaliku rek ndax dañoo amoon thème spécial moo di ne bu ñëwee dañuy jàng burdu am luñ ci jot a firi waaye yaakaar na donte le tënkuñ pour de dana jaadu ñu fàttali nit ñi lan mooy guddi gi nga xam ne moom lañuy ñuy préparé incha allahu rabbi guddi gi nag bu ñu delloo ñi nga xam ne ñoo am luñ ci wax naan bidaa la wala du bidaa suñu sëriñ Cheikh Tidiane al maktuub radiyallahu taala anhu dafa wax ne dont le dañ ne akrim bi ahmadi fi nisaami mawlidi akrim bi mawlidi ahmada min mawlidi te akrim ku jàng grammaire afala taajub la waa ji dafa yéemu yéema yéem ba sës amatul leen lu ci mën a muy jëfandikoo baat akrim foofu lañ koy indi ñu ne ko waaw maam dafa am ñu naan ñi sallallahu alayhi wa sallam juddum feete ko bidaa la mu ne ah bu dee bidaa tamit daal rafet na waaye wa qul li suuli fa bidaatun mardiyatun ahsin biha min bidaatin lam tujaadi donc le bidaa la bidaa bu rafet la kon mën nañ ci jàpp te bu doon bidaa tamit tudd gi alquran tudd ne wa amma bi nihmati rabbika fahadis mën nañ cee joggi ne du bidaa ndax dañooy fàttaliku juddum yonent bi alayhi salaatu wassalaam te alquran moo ñuy wax ne bu ngeen ma fàttali ko ma dolli leen kon mën nañ ci joggi ne feete juddu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkul bida loolu yëpp nag buñ koy wax doot le indiwuñ thème bi nga xam ne moo ñu taxoon a jóg dafa bari ñoo xam ne ci jamono jii bu ñu deful attention rek ñu yóbbaale ñu ndax dañuy yastaruuna ayatullahi samanan xalila li yàllay wax au lieu que ñuy wax ñi kon ñi nga xam ne moom la ko yàlla waxee waaye dañ cay def ta'wil ci façon boo xam ne seen bëgg-bëgg lay dëppoog lu dëppoog li yàlla wax moo tax bi ñu amee thème tamit te mooy Firi ñu gis ne lii tamit am na sens ngeen baal ma nag ndax liñ ma tënkoon rek loolu la waroon def maam Cheikh ne dinañ def li yëpp waaye biñ koy def tamit dara taxut walam naxsa ilallah sukran li fadli dañ koo def rek ragaluñ ci dara ragaluñ ci benn doomu aadama waaye dañ ko def ngir sant yàlla tabaraka wa taala tanag wa tarkul ixtiraafi bil mahamidi qusran yàlla defal la xéwal nga ñàkk ko ci sant loolu ak pertement la kon yàlla ñu yàlla musal ci pertement boobu ñi koy def ci façon boo xam ne yaakaar na cër yañ koy wuyee seeni borom dañoo tënkoon ci tarixa tarixa ba ñu tënkoon nag góor gi bi mu koy wax def ne lana fi huda xayri tariqati usratun laqad baayo wal axtaba fiha mahano ba tey muy wax na wa kaana alxina lil faqri adwan وقاد عبدا وخادما وكان الثروة بالفضل والأمن يزدان kon daal pour fàttaliku juddu Yonent bi alayhi salaatu wasalaam Seex Seydi Aji Maalik biñ ko laajee daf ne di wéy di xayaal di xayaal di xayaal ba mu yàgg ñu ne ko góor gi loo bëgg a wax mu commencé naan allah yaa daadu way ak nabiini bi dikril vani taxtaanul huyuuni afi bayni hibaluki am bi baynin li usaaqin biramata xabirini xifi nafki ahibata kay nu daawi dannan fiina bi ijra'i suuni di dem nit ñi di ko déglu di ko déglu di ko déglu ba mu yàgg wax ji jaaxal leen lool lool lool mu mel ni xel dafa laaj ci biir ne ko góor gi loo bëgg a wax mu ne dama ne matama daana bahruki min ku ñu aalu te du jamono ji tamit nag kese dafa yàgg yunt bi alayhi salaatu wasalaam ci boppam amoon na ay woykat daan nañ xëccoo kenn ku ne naan ma dàq wu yunt salaatu wasalaam kon lu yàgg-yàgg la ba tey bu ñu continuer ci li nga xam ne mooy préparer guddi juddu yunt bi salaatu wasalaam lan moo tax duñ ko feetee te ñun kenn ci ñun mu ngi préparé bési judduum jot moom feetee ko kon lan moo tax duñu feetee juddu koo xam ne bu duuloon moom ñun du moom rek mooy koo xam ne moom la yàlla wax ne wa innaka la ala xuluqin asim keneen amut ci déedéet moom mooy koo xam ne محمد أصرف الأهراب والعجم محمد قيل من يمسي على قدم جزاك الله خير أرب دفني تاب سين داور أو صار نملا لولن ده سدير لينك ويا مم ما يكو وكان محتجبا من قبل في هجوب يسبه الله في أقير متصيم أفا دردي أم nekkoon na di kiiru ci ay kiiraay kiiraay yooya yonent bu ñëw rek dafa am lu ko ci yàlla sédd ci kiiraay yooya te jool màkk làmboon yëpp mu ñëw andi loola pour xeetam mën a déglu ko wa xalqul axlaaqi baxsul anbiyaay li zuhurihi muqaddimatun fahlam wala tanami moom dafa nekk koo xam ne bindkat bu ñu dem rek dañ naan kooku lim ci bind keneen bindut ko ci bu ñu imam bu Zeyri lim ci wax kenn gisul bu ñu seetee Cheikh Sidi Hadji Malick bu ñu seetee maam borom Touba moom mi lam yabdu mislul Mustafa Muhammad sirran wa jahran fi baraya samadi madad lana al islama wal kufra maan wa bi nasiyati sama ñu ne imam Busir yow da ngaa wax loolu noppi wala mu ne déedéet kayfa tarqa ruqiyaka al anbiyau ya samaan mata waladha samaau لم يساووك في ولاك وقد هالت منك دونه والثناء يو يا كو قمني انما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء انت مصباح كل فضل فما تصدر الى هندوئك الادواء لا اله الا الله واو نما لين كو واخي ki ñuy waxtaane mooy koo xam ne weer wa at ma bés ba lépp mbégte la ndax sururu fi sururi fi mooy koo xam ne ki ko bind xam ko moo ko njëkk a tagg moo ne ko innaka laalaa xuluqin azim mooy koo xam ne wama yantiqu anil hawa lépp lu mu andi dëgg la إن هو إلى وحي يوها ندخل تخ هل ما صديد القوة سومرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى طيب تيم مجد مومجال مكا بوين في فنانون تيك وقتاني دامان دوجيه تنانيو قمني لي دوف جنك يوي قجل جيلي دفا ملي بردو لن دون دفا te burdu dafa tënkuwul ci heure boo xam ne moom lañ joxe woon dépensé nañ ko sax te nit ñi amuñ jot waaye lépp yàlla na ko yàlla def muy ay yiw te fulal ñi ko jaay seydil wujudi wa adami suudi mu mel ni nag mënuñee wax burdu wax say Seydi Hadji Malick te duñ tudd Serigne Babacar Sy mi nga xam ne bi Maodo bindee teg moom moo ñëw jàngal ñi ko waaye bi ñu ko jàngalee ba noppi tamit ñun xamuñ sëñ Babacar Sy Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum moo ñëw jàngal ñu Serigne Babacar Sy ñu ne ko loo bëgg wax mu ne waqaftu ala babil xalifati axtadi min alaai rabasa wafqa juudihi ñu ne ko lu tax mu ne fa in lam yakun babul xalifati li ismatan li nafsi fa ma maxna rida bi wujudi bu fekkee dama ñëw taxaw ci buntu Serigne Babacar Sy ba nga si dem def la mu def ba ñëpp daagooral ko ko ma ñëw taxawaat tëyit ma bunt bi may dugg di xuus yi di wut la mu wutu woon kon demam amul njëriñ kon bu ma dem damay toog li mu indi doy na te moom mooy koo xam ne wa kunta amiral xaq Sëriñ Babacar Si bu ko temps bi mayoon danañ wax ci moom ndax bu ñu xamee sallallahu alayhi wa sallam yàlla ak moom la ndax bi ma Maodo bindee dem bu fi ñëwuloon moom ginnaaw gi jàngal ñu ko duñ ko dégg ci jàngaleem nag bi ñu ko xamee ñun kan moo ñu jàngal kan mooy Serigne Babacar Sy ba tax ñu xam ay bindam xam bindu maam Maodo Malick Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum kon moom moo ne abuna abu bikrin wa in kaana fi lxawri raddina bu fekkee roy kese la bu dul Abubakar kan lay roy bu dee wéeru kese la bu dul Abubakar ci kan lay wéeru kon doy na wéeru wa dama ne dañuy waxtaanee koo xam ne buñ ci fanaanoon tey ba suba du jeex ndax keneen ak keneen ak keneen li ci wax nañ ciy di profité ci jotaay yu mel nii ndax day am solo kon nañ ci profité jotaay yu mel nii bonus la ci dund doomu aadama bonus la ci dund doomu aadama nañ ci di profito di ci ñaan di ci julli di ci sant yonent bi alayhi ndax nag xeet yi passé amuñ ko woon kon ñun ñi nga xam ne ñooy xeet sallallahu alayhi yàlla xéewee ñu lii nañ ci profito di ko ci fàttaliku mu mel ni guddi na ba noppi ñuy wax suñu mbokki jigéen yi ñoom it nañu xam ne am nañ taxawaay bu rëy rëy rëy ndax sallallahu alayhi wa mu yegg yëpp histoire boo topp jigéen a ngi war ci côté am na guerre boo xam ne xare boo xam ne sax bi ñu takkee xare ba bi jigéen ñi dañ ne ñoom it nañ leen jox drapeau ñu téye ko lan moo ko waral ku gaañu la góor ñi amuñ temps pour faj la ñoom ñu ñëw saytu la ba góor ñi am temps fu ñu soxlaa ndox ñu may leen ko fu ñu soxlaa lekk ñu defal leen ko te sax moo waral xadijatun sa kanam saa bu mosaa am problème xadija bintu xuwaylid magee ko 15 ans mu takk ko soxna te mooy jur doomi salaa salaam yëpp ba mooy ibrahim kenn la ci jurul ibrahim mariatul nal xibti moo ko jur mu ngi bokkoon ci giir gi nga xam ne firawna bi nekkoon isma ci la bokk kon jigéen na bàyyi xel boppam ci société bi kon dafa mel ni gudd na ba noppi waaye ni comment Abdoy waxee ak Abdou Aziz Sarr képp koo xam ne am na lu la manqué ci waxtaan bi ngay ñaan yàlla déglu yeggali ba bu doon ci luxal arab la dañ naan la nisfu sarita sa tatalaqaa maahu fii insha allah تجاه أتمزار سنتلقى معكم إن شاء الله بحول الله وقوته ومن هناك سنتواصل معنا حديثنا إن شاء الله تلكم السادة وصيدة أخاكم إبراهيم وأصدقائه السملاء يتحدث معكم ويتلقى معكم بسدة السرور والفرع على هذه الزلزة الصريفة ونقول لكم شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. di leen sant bu baax a baax a baax. te di ñaan yàlla lépp lu ñu fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu yàlla yàlla nangul te bu ñu nangulee mu fulal ñu eh, xam naa daanaka sax ñun waruñu woon a jël kàddu ci kanamu kilifa yu baax yi fi nekk di oustaz Ibrahim ak kanamu alaaji As ndax ñun moom ay taalibe lañu rek duñu ay oustaz daanaka dañ ñoo jël rek teg ñu ci kanam def ñu vice président Euh, ñu ciy barkeelu rek mu mel ni lépp nag yonent bi ko war a sallallahu alayhi yonent bi tagg yonent bi jar na lu nekk waaw jar na lu nekk ndax dañu wax ni bunt ku ciy ja euh, kër ku ciy jaar il faut nga jaar ci bunt te kenn mënul yegg ci yàlla te jaaroo ci yonent bi sallallahu alayhi kenn mënul yegg ci yàlla te jaaroo ci yonent bi sallallahu alayhi ndax yonent bi mooy porte bi waaw yàlla moo wax ni in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum zunubakum wallahu ghafurur rahim loolu nag mënoo ko am mukk te jaaroo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mag ñi loolu lañ teel xam jël seen lépp jébbal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñuy wax ni képp koo xamante ni da ngay way te woyoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanaka sax yàq nga sa xalima yàq nga sa way képp kuy tagg te taggoo yonent bi sallallahu alayhi yàq nga sa taggin képp kuy waxtaan te waxtaanoo ci yonent bi sallallahu alayhi yàq nga sa waxtaan ndax dañu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sangu-sang yi almuxtaar moom lañ tuddee almustapha fii dañu ko tànn ci ñi ñu tànn fii ñu tànn ko ca ña nga xamante ni ci ñëpp biñ ko tànnee ci ñu tànn nag te mooy euh, yonent yi ñi nga xamante ni ñoom la ñu moom la ñoom la yàlla tànn di cent vingt-quatre mille yonent جند كي 300 تريزيا 25 يا اك اول لازميا ينتو صلى الله عليه وسلم لا تان مو نيك تا كانم موتاخ وتقدمت للصلاه كلهم مقتدين وانت الامام موي موي نجيت موي سين نجيت نيوم نييب تا موي سانغو سانغي ينتو صلى الله عليه وسلم بروم تيري بي ني دون جانغ نا خمنا استاذ دا فا امول جوت بور فيليكو واي تيري بو ام سولو لا تا موي امام امام امام بوسري امام بوسري موكو بيند امام بوسري lu tax ñu tuddee ko Busri moom imam Xasan Muhammad ibnul Xasan moom lañ ko daan woowee waaye lu tax ñu tuddee ko Busri baayam moo dëkkoon dëkk moo moo dëkkoon dëkk bu ñuy wax Busri ñu koy dàkkantale Busri am na ñu ne cosaanam sax fii la ci Maroc dafa feebaroon moom Busri feebar boo xamante ni dem na fu nekk kenn mënu koo faj mu dem ci médecin bu nekk benn médecin mënu ko woon faj muni nak kon xaaral ma dem ci dem ci médecin wu médecin yi tamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la nak commencé bind burdu bi ni amin tadakkuril jiiraani bi di salami maraj masajta damaan jaraamin muxlatin bi damin diko tag diko tag ba tudd ba guddi tudd ba guddi gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam mu koy tag diko tag tagg di ba egsi ci fa mablaghu ilmi fa mablaghu ilmi fihi annahu basharun munatul dem mu tak fofu meunatul dem yonent bi yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko wa annahu xayru xalqullaahi kullihim wa te ci la jël manto ba yonent sallallahu alayhi wasallam mom manto ba sànge ko ray ko loxom yu tedd yoy imam Busiri wér motax tax bi médicament la dañu wax ni kep ko xamanteni sax da nga febar jël ko nga jàng ko parce que médicament la imam Busiri bam bindé bindee bi ba nopi dafa ba xeyé dafa wér amna amna benen gumba buñ doon wax Euh, euh, Saad moom dafa dafa gumba woon ba kenn mënu koo faj moom it noonu la yonent bi mel ak yonent yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu nee tëll ñëpp fàtte yonent yi donte nag dañu ni na nga leen gëm ñoom ñëpp amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihim oh. wal muminuuna kullun amana billah wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi yonent yëpp lañ la gëmloo waaye nag ba yonent bi nee tëll ñëpp a xam ne yonent yi yonent bi lañ doon junj sallallahu alayhi moo leen raw ñoom ñëpp te mooy seen sang kooku nag dañu wax ni képp koo xamante ne da ngay waxtaan da ngay waxtaan ca waxtaanoo ci moom yàq nga sa waxtaan képp kuy bind ca bindoo ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàqoo yàq nga sa bind mag ñëpp mag ñi ci Sénégal ñëpp bind ci Yonent bi sa alayhi amul mag mu bindul ci Yonent bi parce que mënoo yegg ci yàlla te jaaroo ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yegg ci yàlla te fëggoo buntu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi moo yor caabi yàlla boo bëggee yee jaar ci yegg ci yàlla mënoo tegg yonent bi sallallahu alayhi moo tax mag ñi loolu lañ xamoon ku mel ni Cheikh Al Hadj Malick nag xam nga olof dafa dof gis nga olof boo ko wanee boo ko wanee lu rëy ci bëtam rek mën na la jaamu tey ku fi génne woon karaama léegi léegi commencé soppi nit ñi léegi nit ñu topp la Cheikh Al Hadj Malick ni comme comme nit ñi noonu la ñu mel xaaral xaaral ma wan leen yàlla te bañ leen wan sama bopp. mu wan leen yàlla ni comme yàlla boo ko wanee yàlla yàlla fayal la boppam bàyyil ma wan leen yàlla ñu bañ maa xam moo tax kenn xamul Cheikh alhaji malik Malick loo tax kenn xamu ko dafa nëbb boppam waaw Serigne Cheikh Tidiane si tey bu bëggee xam nit bu bëggee xam nit xamoo ko xool ko ci njabootam bu njaboot ga yiwee nga xam ni moom moom ku yiw la waaye bu njaboot ga yiwul nu mu mel rek ca njaboot ga lay mel Seydi Hadj Malick moo tax dafa daan wax ni bala ñu ma xam nañu bàyyi ba sama tuut tànk yi màgg moo tax bi ko Serigne Babacar si doon na ñu xam ni ci lañu xam Seydi Hadj Malick Cheikh Al Hadj Mansour ñëw toog ci xilaafa gi juróomi fan Cheikh Al Abdou Aziz ñëw foog naa ku xool njabootam. xam ni Cheikh Al Hadj Malick dara la min baadi abi bakrin suma Mansour wa Abdul Aziz suma Habib wa Abdul Aziz suma Habib ñi mu ni suma ñëpp kenn toogu fi min baadi abi bakrin suma Mansour Alaaji Mansour yàggu fi waa Abdul Aziz ba mu waxee Abdul Aziz mu ni suma Habib ñamu wax suma ñëpp kenn yàggu fi maam Habib yàggu fi Alxaaji Mansour yàggu fi waaw bu ko defee borom burdu bi gis nga li téré li li ñuy wax li ñuy wax tajrid mom la def moy dafa xaj jëmbam ñaari xaj bi mi tag yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bi mi tag yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa xaj jëmbam ñaari xaj benn jëmm bi di wax ak benen jëmm bi lan la benn jëmm bi wax benn jëmm bi amma zajta damaan jaraamin muqlatin bidamin mu ni ko ndax dangay jaxase ay rangooñ ak ay deret yuy bënn ci ay bët ngir lan amin tazakuril jiraani bi zi salame wala boog da ngay fàttaliku sa dëkkandoo ya nga bàyyi zi salam bu dee ñi nga mag ñi nga xamante ne nag dañoo am baatin ñoom firéewuñ ko noonu mag ñi nee nañ zi salam gii am na ñoo xam dañ koy firee place boo xamante ne benn place la bu nekk Medina. waaye borom baatin yi dañ ni zi salaam muy daaru salaam muy mooy àjjana nee nañ borom téere bi loolu la ci jublu ndax nee nañ imam Bushiri yi dafay jooy ba jooy nekkul ni jooy yu génne yu ànd ak deret la waaye dañ ni jooy bu rangooñ a jeexee rek bët ya taa bët ya bët ya xonk xonk ba deretal yooyu jooy la ndax arab yi bu njëkk nit bu jooyee dañ naan jooyu mbégte la wala jooyu de wala jooyu bànneex bu fekkente ni jooyu bànneex la dañuy làmb rangooñ bi bu fekkee dafa tàng ñu ni jooyu naqar la bu fekkee dafa dafa sedd ñu ni jooyu bànneex la jooyu mbégte la imam Bouchiri di wax ak benn jëmm ji di ko wax ni ko wala boog da ngay fàttaliku sa dëkkandoo ya nga xamante ni ñoom nga nekkaloon zi salam mu ni ko am xëbbati réexu min tilqaa i kazima wala boog ngelaw laa upp mintil xaa bàyyi bàyyi bàyyi bàyyeekoo Kasima place bu ñuy wax Kasima ba tey foofu tamit borom baati ni dañ ni Kasima comme ngelaw ngelaw loolu di upp biir àjjana la imam Bouchri dafay jooy ni ndax bëgg a dëkk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biir àjjana mu ni jooy yooyu la jooy ba rangooñe ba rangooñe jaxasoog deret ndax bëgg a bëgg a bëgg a dëkk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa aw madal barqu fi zalma i min idamin wala boog mer gaa tàkk melxatiga melax melax lañ koy wax melxatiga moo tàkk bàyyi xoo place bu ñuy wax idam mu ni melax googu tàkk it borom baati ni ñu ko fiiree mooy idam mooy mooy sawara ndax dañ ne ku fa dugg jooy sawara ku fa dugg jooy soit fii jooyu mbégte la fee jooyu naqar fe imaa nga jooy jooyu bànneex wala imaa nga jooy jooyu naqar yàlla nañ ci yàlla musal jooy jooy naqar léegi mu ni ko famaali in qulta ak fufa hamata wa maali qalbika in qul tastafiq yahimi dama koy bàyyi nag oustaz yi après damay ñam rek ndax man moom élève laa damay jaxase rek bu ma ngeen ni waaw mu ni ko famaali in qul tak fufa hamata wa maali qalbika in qul tastafiq yahimi mu ni ko lu tax ci sa ci sa bët yi ba bu ma nee ko rek bàyyil rangooñ yi muy jooy rangooñ rangooñ yii jaxasoog deret di di jooy ànd ak tiis mu ne ko lu ci nekk ba bu ma ko waxee bàyyi ko rek nee na keroog rek keroog la gën a mën a jooy lu tax waaye jëmm mu mel ni jëmm ji muy waxal jëmm ji dafa noppi rek waxu ko tontuwu ko ba léegi mu ne ko wamaa li qalbika in qulta stafiq yahimi ak sa xol bii nga xam xol bii di naqarlu rek mel naqarlu naqar gu ànd ak tiis boo xamante ni danaka buma ne ko bayil sa tiis wi day mel day kérok la gëna a lutax ma ngay laaj benn jëm ji rek ji benn jëm ji moy laaj benen jëm ji ba lé waaye ba légui tonti wuko mu ne ko ayaxsabu sabba sabbu an al xubba munkatimun mu ne ko foog naa ni nag ayaxsabu wala ayaxsibu bo ci wax baxna na mu ne ko li ngay bëgg ki muy ki bëgg ak li muy bëgg daanaka mënu koo nëbb ndax tontu wuko ba légui maa bay na mun sajibin muttarimin lay yol rangooñ yay yol yoli jóge ca bët ya ak la muy tiis ak tiis wu muy génn ca ca xol ba benn jëmm ja ba léegi tontuwu ko mu ne ko lawlal hawa lam turiq dam an ala talalin mu ni ko bu fekkul woon xam naa ni lii du ay rangooñu naqar mu ni ko rangooñ yi di génn ci bët yi du ay rangooñu naqar lawlal hawa lawlal hawa lam turiq dam an ala talalin bu fekkul woon du jooyu bànneex mu ne ko doo sonne nii ngay sonne di ko jooy ci ci ci euh, ci ci jaan ji lañ koy wax xawma wala fukki am damay fàtte tur bi ci olof mu ne ko bu fekk ah ngent gent waaw gent lañ koy wax ngeen baal ma olof bee xawlu kii euh, xam naa dama doon barkeelu foofu rek ba mu egg ci nag fa mablaxul mi فمبلغ العلم فيه أنه بشر منتل دم وأن تلقوا تلقوا ينتبه صلى الله عليه وسلم نكو وأنه خير خلق الله كلهم لكن أمن برام خم خم يوح نتير بيس أخور نكو تودي دم بردو بر ألين كورن تدي ندخ داي سافرة تيري بينو bi bi biñu waron tuddé pour du moy téré ba kaab moy bi kaab de way yaronte bi sallallahu alayhi wasallam euh bana shuhat moom moom nee nañ téere boobu lañu waroon a bindee Bordeaux Imaam Ibrahima mi ngi ree rek xam <laughs> waaye daal kooku mooy yonent bi sallallahu mu mel ni Serigne Cheikh dafa wax ni jaamu yàlla bi ñu jaarale ci ay ci yonent bi sallallahu moo gën a gaaw jaamu yàlla bi ñu jaarale ci ay pexe. ndax pexe boo demee ba ca sa ba sa pexe jeex dootoo dem te jaamu yàlla bi nga jaarale ci yonent bi nag loolu dañ koo garanti moo tax ma ne képp koo xamante ni dangaa jóg di jàngale wala te jàngalewu ci yonent bi sallallahu alayhi wa yàq nga sam jàngale looloo yëkkati yu waral jotaay bii bëgg nañ nag ëllëg mu ëpp lii ñu tànte ko fu mel ni hôtel Sahara wala fu gën a yaatu foofu naar yëpp ñu bokk ak naar yëpp ni leen kaay leen ñu tagg yonent bi sallallahu alayhi ndax amuñu ku dul yonent bi sallallahu képp ku am nag yonent bee la yonent bee kon nag yàlla nañu sedd ëllëg képp ko balaa déwén képp koo xamante ne am am na soxla balaa déwén yàlla na soxla ba faju ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa comme yàlla ci barke yonent bi sallallahu alayhi yàlla mën na lu nekk képp ku fi indi feebar ak loo manti ak problème boo manti di am wax nga ko wala waxoo ko yàlla ko yàlla saafara balaa déwén yàlla ngeen am ay teraanga ay teraanga ay teraanga ay teraanga ba fàtte seen coono yi nekk ci ginnaaw yëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci barke yonent bi yàlla mën na lépp ñu ngi jéggalu nag ñu ngi bëgg a guddal asalaamaaleykum wa wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di ziar euh, suñu site yi di DMTV ak Tayfir TV ñu ngi leen di ndokkale ci burdu bi ñu doon def kontaan nañ ci seen teewaay yéen ñëpp di ndokkale it waa Daxla di kontaan ci waa Daxla yëpp ndax tey dafa nekkoon burdu spécial bu ñu doon def mu nekk loo xam ne dañ ciy lancement gàmm gi incha allah ndax gàmm gi incha allah samedi le 9 novembre la ñi ngi koy defee ci salle biñ ko daan defee ci wetu hôtel Sahara ñi ngi ciy invité nag mbokk yëpp mboolem ku nekk Dakhla rek ñi ngi lay invité képp ku naan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah rek xamal ni gàmm gi sa gàmm la ba tax na daal ñi ngi sant ñëpp di ziyaar ñëpp di ndokkale ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi kon ñoo ko déggandoo kon loolu moo doon burdu bi jeex na ci jàmm ak salaam kon sëñ oustaz Abdou Ndiaye nee na euh, képp kuy wax ashadu an la ilaha illallah wa ashadu na muhammad rasulullah rek ma ngi lay woo ci gàmmu gi wasalaamaaleykum wa